رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون mbokk yi ñu jàkkaarloo ci seen chaîne bii di Safina TV ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo bi gën a sell gën a tedd te gën a matale te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. seen émission la religion et société dellu si na comme ni ngeen ko baaxoo di am mardi bu nekk ci waxtu wi. tey nag ñu bëgg a waxtaane xew-xewu jamono loo xam ne tamit dafa yitteel diine muy wàllu loo xam ne euh, alquran yàgg na cee wax yonent bi sallallahu alayhi wa it wax na ci mboolem boroom xam-xam yi yi ñu jiitu woon it wax nañ ci mu mel ni ci jamono dafa ñëw nag euh, mu gën nekkaat devant de la scène muy wàllum góor jigéen nga xam ne léegi wax jiñ koy wax bari na te teewul alquran waxoon nañu ko ca nitu xawmu luut ya walu ta nit qaala li qawmihi ataatuna alfaxishata ma sabaqakum biha min ahadin min alaalamin nga xam ne ñoom ñoo ko fi njëkke te yàlla mbugaleel leen mbugal moo xam ne mosu koo mbugal doomu aadama te mbugalaatu ko keneen aussi jëf jooju nag mbon gam bonoon ba yàlla mbugaleel leen mbugal moomu teewul yonent bi xamle woon na ne jëf jooju dana dellusiwaat ci biir xeetam te dellusiwaat na ci jamono bi léegi nag comme na ko xadis boo waxee woon rek képp koo xam ne gis nga loo xam ne baaxul nanga ko jéem a dindi ci sa loxo te mooy nga xeex ba mu dañ bu fekkee mënoo ko dindi ci sa loxo na ko nanga wax bu fekkee wax nga mën bu fekkee mënoo lool na nga ko méttal ci sa xol yaakaar naa nag marche bi nga xam ne amoon na dimanche ci cadre boobu lay dugg <clears throat> mooy dindi ko ak sa loxo maanaam jëf ngir mu dañ ñuy jaajëfal mboolem ñi nga xam ne teewoon nañ fa ak ñi nga xam ne ñoo ko organisé woon macha allah muy loo xam ne fierté la ci Sénégal muy gis lu bon taxaw ne du fi am. Euh, ñu leen di jaajëfal bu baax di ñaan lépp nekk rek yiw bu weesoo loolu tamit war nañ continuer di ci wax rawatina euh, fépp foo xam ne boo ko fa waxee ñu dégg la war nga ko faa wax ngir loolu mën a dañ ndax day taxaw lan position jihaad ndax buñ ne jihaad ñu bëri dañ foog ne mooy jël jaasi xeex wala jël fetal jàkkaarloo waaye wax sax ngir dindi lu bon kooku ci jihaad la bokk xeex ak sa bakkan ngir bañ a def lu bon ci jihaad la bokk kon lii ñuy def kon dañuy jàpp ne ñun mooy suñu euh, mooy suñu ci suñu responsabilité la bokk ci wàllu woowu ba tax na na ngir waxtaane ko day laaj euh, ñu seet ñi nga xam ne ñoom lañ gën a ciblé te mooy jeunes yi ñooñ nga xam ne ñoo nekk ca bopp ba ngir promouvoir euh, wàllum góor jigéen am na ñu gën a ciblé te mooy ñi nga xam ne ay ndaw lañ soxlawuñu mag ñi soxlawuñu ñeneen mais ndaw ñi lañu soxla kon nag kuy wax ak kuy wax na nga wax ak ndaw ñi te yaakaar naa alhamdulillah xel war naa dal ci ne ndawu Sénégal pareeguñ pour adopter loolu ndax boo xoolee marché bi nga xam ne moo amoon ci dimanche bi ay ndaw ñoo fa ëppoon kon loolu sant yàlla la waaye teewul it waruñoo wàcce suñuy loxo ci ne ndaw ñi ñu ngi koy xeex rek. ndax gaa ñi am nañ ay matukaay ay jumtukaay yoo xam ne mën nañ ñoo jaar fu nekk saa su nekk ba tax na kon xeex bi day soog a commencé waaye demagul fenn loolu moo tax kon ñu dalal fi kenn koo xam ne jeune la euh, koo xam ne amul na gëstu ci wàll wi ku xam doxalinu jamono di observateur muy suñu mag suñu xarit suñu wóllëre El Hadj Niang xam naa dañ koy jox mu nuyoo rek incha allah. comme saa ñu mën a dugg ci ci waxtaan bi. waaw macha allah dañuy wax euh, alhamdulilahi rabil alamin rek sant yàlla bu baax di sant tamit euh, euh, waa Sénégal yëpp di sant tamit kilifa diine yi bu baax a baax waaye di sant tamit mu Munir moom mi nga xamante ni moom moo ñu may tey opportunité pour ñu mën a toog jàkkaarloo ak àdduna pour wax si li nga xamante ne nii tey moom mooy lëmbe réew mi lëmbe àdduna. fas yéene see partagé ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk suñuy rakk nekk suñuy xarit nekk suñuy mag parce que comme ni mu ko waxee rek nekk na loo xam te instant bi lépp lu si nit def rek pour loolu bañ a am rek yaakaar naa ni euh, yiw la boo xamante ni kenn xamul fan la toll kon ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp macha allah. tabaarakallaahu euh, nuyoo bi am na solo matala na bu la looyee suñ première question day jublu rek ci wàllu. boobu nga xam ne moom la ñuy waxtaane muy wàllu góor jigéen donte xam naa danañ danañ xuus tuuti ci buñ demee ba si kanam ci wàllu yàqutey jamono ak yeneen yi nga xam ne niroo na ak wàll wi euh, pour yow lan moo waral phénomène bi bu njëkk daan nañ dégg euh, wàllu góor jigéen société sénégalaise mu musuñ ko bëgg mais ni mu jëlee ampleur si jamono bi nga xam ne danañ dem ba ne fekk nañ ay góor jigéen ci jumaa sàngam ñu fay sëy fit woowu ñu am léegi pour yow lan moo ko lan moo ko waral lan moo leen poussé daal bañ egsi ci fii nii. macha allah posé nga question bu am solo parce que yaakaar naa ne domaine boobu lépp lu luñ si waxtaanee day am solo mais day am ay points yoo xamante ni nii tey ñi koy waxtaanee ñëpp duñ ko laal te question boobu na lu am solo li ëpp solo mooy lu leen may fit léegi macha allah xam nga réew dafa am ay ni muy doxee tey yaakaar naa ni tey. nit lu mu am doole wala nit lu mu am xaalis am xaalis am na tey loo xamante ni moo ko ëpp doole muy gouvernement te gouvernement lépp lu mu dooleel rek day am doole côté boobu noonu boo gisee tey ñoom ñu am fit ba sañ a taxaw tey lii bépp koo xamante ne nii tey maanaam si milieu boobu nga nekkoon muy góor jigéen euh, mosoo am fit def ko tey nga dem ba am fit di def yenn nii c'est parce que am na ñu leen dooleel ñi leen dooleel noonu nag moom ñoo mooy suñu état. suñu état bi kese Alaaji Munir moom moo leen dooleel parce que li tax état bi dooleel leen mooy tey àdduna ni muy doxee lépp loo gis étape par étape la si anam yëpp étape par étape la parce que boo xoolee tey ñun duñ ko masaala dégg dañ daal di yéemu dala daal jaral sax yow nga jógee euh, koñ ba koñ ñu naan fii la amoon fii la jaaroon léegi boo xoolee yow da ngay da daal jékki-jékki après ñu ne la jaar na sa koñ te da ko daal dégg nga jékki-jékki léegi ba dañ naa la yéen a bokk oto nga jékki-jékki ba naa la mi ngi si koñ bi kon yaakaar naa ni loolu noonu mu ngi màgg mais pour ñëwaat sa question bi rek li tax fit boobu noonu ñu am ko muy état moom moo leen dooleel waaw. mais état aussi est-ce que amul ñoo xam ne ñoo koy mettre pression pour comme si comme ñun dañoo dépendre toujours ñun africains yi. Mhm. nga xam ne toujours ñi ngi soxla ay ndimbal yu jógee feneen es ce que nekkul ñoo xam ne ñoo nekk ci ginnaaw état di teg ay pression. pour mu may fi doole ñooñ nga xam ne ñooy góor jigéen ñi aussi est-ce que état aussi euh, moom est-ce que du ñàkk pexe moo ko ci dugal. waaw macha allah am na solo tamit parce que loolu noonu war na mën a jaaxal ñu bëri te day jaaxal ñu bëri parce que buñ ne tey euh, nan la leen état di jàppale te état bi ñi ñu xam ne la majorité parti ñi si nekk ñam ay musulman lañ te loolu noonu même ñu dul musulman sax nanguwuñ ko kon dañ naan loolu nan la mën a nekkee mais gis nga bépp état muy rawatina état africain yi. maanaam moomuñ seen bopp dañ wax quoi parce que bu njëkk boo xoolee sunu maam yi euh, avant ñuy am indépendance sunu maam yi dañ leen daal ñëw forcer leen jàpp leen def loolu lu leen neex boo bañee tubaab bi yow parce que tubaab bi magee nañu ay cent ans maanaam ñoom li ñuy xalaat ñun africains wala parce que su ma waxee mën nañoo jàpp ne xeeb suñu bopp la du suñu bopp mais tubaab bi maanaam day xalaat loo xamante ni ans la wala vingt ans la avant ñu par rapport ak ñun ñoom bi ñu demee ba xam ne léegi nit ñi changé nañ nga may ma tuuti rek ma am lu fu ma tibbee ñëw pour man a yegg sa question bi bi ñu demee ba xam ne nit ñi changé nañ maanaam léegi dañ dañ leen ne comme africain ñi ngi xeex indépendance nañ leen ko may ñu may ñu ko ci wax mais bu dara si lu dul jëfiñ léegi dañuy ñëw si yow mi ñu ko may ne la may naa leen indépendance kat mais dañuy jàppale ku mel ni diw wala ku mel ni Alaaji Munir moom la ñuy jéem a jàppale mu nekk président ñu jël la teg la si bopp yow nga ñëw africain nga ñëw léegi tey plus de quatre millions wala cinq millions d'habitants nga jiite leen oto yi wër la xaalis bi wër la lépp yomb la tubaab bi ne la lii maa la ko may boo dof loo ci quatre ans wala cinq ans dama koy dindi te ñëpp xam nañ ni africain yi dañu bëgg nguur léegi su ko defee nag nga nekk seen ginnaaw yow di leen liggéeyal te monde bi dafa toll foo xamante ne nii maanaam nitu diine yi ñi nga xam te ni dañuy dund lislaam dañuy dañu ko gëm donte mu néew donte ñu mu nekk non pratiqué parce que dañ koy wax tamit euh, musulman la mais dafa bëri musulman yoo xam nekkuñ di ko pratiqué c'est-à-dire musulman la si tur mais nekkuñ di ko jëfee léegi comme léegi ñooñ ñooñ ñooñ tamit am nañ njëriñ parce que am na yoo xamante ni jomm nañ ko léegi bi demee ba nga xamante ni ñi nga ni ñoom ñoo nekk ci millier boobu noonu muy wàllum góor jigéen wàllum euh, faramaçon biñ demee ba nga xam xamante ni xam nañ ni diine mi ngi leen di sonal dañuy jéem a xool nan lañ faagaagalee diine lenn loolu kese moom moo nekk li nga xamante ni moom mooy tax nit ki am xel mooy tax nit ki xam li ko war ak li ko warul parce que li ëpp important si réew mooy nit ki am éducation éducation nag n'importe quel diine ah, su ma ne diine rek parce que débat bi nekkul exemple euh, euh, du ma ko miser kese ci musulman yi parce que débat bi tey dafa nekk loo xam te dafa laal dafa laal dafa laal catholique bi dafa laal musulman bi kon voilà ci bépp diine kon su ma ne diine rek maanaam catholique bi na ci gis boppam xam ne li muy wax tamit moom daf si bokkaale léegi bi ñu demee ba nga xamante ni exemple ñi am gëm-gëm ñi am gëm-gëm am lu gëm am lu ñuy jomb ñoom ñoo ñoo yor réew mi tey léegi nag bi ñu demee ba nga xam te réew mi tey loolu ñoo ñu yor ko arrangé wu leen dañuy def le tout pour xeex ko léegi nag niñ ñu koy xeexee mooy duñ tëb tëb ñëw ne la forcé la benn mbir non dañuy xool mbir mi ñu ne peuple bi bëgguñ ko comme peuple bi bëgguñ ko nag te dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo ñu jiite si ñooñu lañ koy jaare te boo xoolee état Sénégal tey euh, dalee ko ci Senghor ba ci tey Macky mi fi toog chaque président am na ñoo xam ne ñoo lay jàppale pour nga toog am na ñoo xam ne ñoo lay jàppale pour nga toog parce que tey boo xoolee euh, Macky tey moom moo fi nekk mais avant muy toog. yaakaar naa ni ñun ñëpp dégg nañ ci euh, élection yi bi muy am euh, Fadala dégg nañ li mu doon wax li mu doon déclaré naan ñii ñoo koy dooleel ñii ñoo koy dooleel ñii ñoo koy jàppale loolu noonu am ñu gis fi Obama ñëw fi am décla am déclaration bu mu wax Macky tamit am lu mu ko tontu ñu gisaat tey affaire bi gën a màgg kon c'est-à-dire que li may wax ci ci point boobu noonu mooy pour ñun ñu bàyyi sa xel ñu xam ni état dañ leen a xoj Abdoulaye Wade kii am Khalifa Niass waxoon na ko Abdoulaye Wade parce que ñëpp xam nañ Abdoulaye Wade ni meloon ak ak euh, kii nii ak Kadhafi mais Abdoulaye Wade dafa jékki-jékki ne Kadhafi da nga war a wàcc ma dégg ñu invité Ahmed Khalifa Niass mu ne euh, li tax Abdoulaye Wade wax Kadhafi wàccal maanaam bu ko Abdoulaye Wade waxul woon mën nañ ko wàccee moom moom bu leen ñëkk a sant bu leen neexoon mën nañ ko wàccee si jour bi Abdoulaye Wade wàcc moom ci jour bi kon c'est-à-dire que foofu Ahmed Khalifa Niass moom mi nga xam ne mën nañ moom moo ñu ëpp gëstu moom xam na ni état ci boppam dafa am ñu leen xoj ñu leen di dooleel ñi leen di dooleel noonu ñoom ñoo moom àdduna du ñoo moom Sénégal wala dafa tuuti si ñoom ñooñu ñoo moom àdduna léegi nag Euh, ñooñu comme ñoom ñoom moom moo àdduna pour ñoom ñu teg la dara nga bañ ko day jafe day jafe loolu tax état di leen dooleel mais am na beneen anam boo xamante ni état mën na fa jaar exemple pour bañ leen a pour bañ leen a fekk si ñoom si liñ bëgg yëpp. très bien euh, anam boobu xam naa dañu ci ñëwal tuuti ci kanam mais comme li nga wax ne ñoom dañoo am doole daanaka ñoo yilif àdduna. <coughs> kon ñun est-ce que xeex yi ñuy def di def ay pétition ay marche est-ce que loolu kon ñun euh, mën nañ am yaakaar ne. danañ ci am ndam. waaw bu rëy sax parce que loolu tamit lu am solo la parce que euh, tey yaakaar naa ni euh, peuple maanaam maanaam dëkk bu nekk majorité euh, mbo majorité peuple am lu ñu bëgg rek loolu dañ koy am parce que boo xoolee tey ñoom ragaluñ dëkk bi guerre wala dëkk bi xeex ragaluñ ko. mais c'est-à-dire que bu ñu demee ba xam ne ñoom ki ñu fi teg faible na trop ci anam boobu noonu ñoom dañuy mujj dañuy mujj duñ bàyyi nag mais dañuy mujj dàqaat mbir bi léegi nag la fait que ñu daaxaat ko loolu noonu moom mooy gañe gi nga xam te ñun gañe nañ ko léegi su ko defee ñu ne ñuy éduquer waat suñuy doom yaraat suñuy doom ak suñuy rakk ba nga xam te ñoom seen jamono buñ màggee loolu ñu indiwaat ko ñoom ñu mën ko puusaat waaw noonu la demee cest à maanaam su ma leeralee bu baax maanaam ñun mën nañoo am ndam mais ndam bi du lañ koy dindi définitivement parce que boo xoolee tamit Macky bi mu koy wax daf ne woon sama sama peuple pareeguñ wala samay ndaw pareeguñ pour accepter ko kon c'est-à-dire waxul ñii duñ ko accepté paree guñ kon pare ñàkk pare googu nag dañu bëgg di ànd ak di ànd ak moom di ànd ak moom ba ilaa yow mi diin. kon yàlla buñ mës a pare. mais euh, ci foofu dama bëgg a xam ñoom ban ban façon la ñuy jaar pour promouvoir euh, góor jigéen ndax dañuy dañuy dañuy def euh, maanaam dañuy jéem a dañuy dajale ay ndaw di leen ci former. wala ci média bi lañ koy jaarale à travers euh, euh, programme yi fay jaar maanaam nan la ñuy def daal pour mën koo tasaare ci ci ci biir ndaw yi pour pour pour pour ñi nga xam ne ñu ngi seetaan ñu mën a comprendre xam nan la ñuy euh, moytuloo seeni doom yu ni mel. macha allah loolu am na solo tamit parce que boo xoolee nit ku nekk tey ki nga xamante ni dafa créer usine am sax day xool usine bi nan lay doxee ki nga xamante ni nii tey dafa créer lu mu mënta doon day xool nan lay doxee ñoom nag. saa à dire que ça c'est diamétralement ak ak ñun nitu simple quoi comme ku mel ni man ça c'est diamétralement opposé ñoom dañu dañu dañu dañu am groupe dañu am ay leader lépp loo xam te ni bëgg nañ ko tey si yàq maanaam yàq lay doon si ñun mais defar lay doon si ñoom mais ñoom lépp luñ bëgg ñoom ci yàq euh, dañ koy toog waxtaanee ko te saa à dire ñoom buñ koy waxtaanee buy agsi si ñun ñun nañ jàpp ne ñun lii nii kat bu ñëwee rek ñoom romb nañ loolu parce que réglé woon nañ ko bu yàgg léegi nag boo xoolee niñ koy niñ koy niñ koy promouvoir pour mu màgg nekkul ne dañuy ñëw gis benn élage bu simple non dañuy xool lu nit soxla foofu lañ ñu rawee dañuy xool li nit soxla maanaam lan la nit soxla ñu ne nit day sol yére xanaa xamoo ni alaaji Munir ba ci man mi ak keneen ak keneen ñu si bëri da nga sol yére boo xamante ni yaa ngi leen di dooleel te doo ko xam wallaahi man dama dama fi may liggéey benn anecdote rek fi may liggéeyee euh, dafa am benn waay boo xam dafa sol benn tubéy ma di ko yedd quoi naa ko sa tubéy bii nii tubéy tubéy yi ñële la quoi mu ne non pourtant benn grand sama benn grand bu nekkoon Italie moom moo ko moomoon mais dafa laaxoon ñu jox ma tubéy bi ma wax ko ko teguñ ci ay fan ndeysaan benn tubaab bi ñuy liggéeyal ñëw di ko xool rek di ko xool rek mu ne ko loo may xoolee tubaab bi wax ko comme li ma ko waxoon yàlla seede na ko mu ne ma kii bu ma demee dama koy sumi xotti ko ma ne ko non non bu ko sumi comme yow da nga souvenir la si yaw maanaam garaaw lem ko nga denc rek pour loolu li nga siy jàngee mooy euh, li tax tey Sénégal dem ba tollu fii sax ba ñoom ñu bëgg ko forcer c'est parce que gis nañ ni ñoom yoon yi ñu yëpp mat na. maanaam jaar nañ tey si yenn artistes yi solloo leen ko artistes yi sol ko seen fans yi sol ko jaar nañ tey si télévision yi def seen i publicité jaar nañ tey si yenn lekk yi parce que di nga lekk-lekk goo xam ne da ngay daaj ci paquet bi seen signe la dem ba yooyu noonu bëri Sénégal ñu ne non kon kii lii koy fees na Sénégal te fekk ñun ñi koy consommé xamuñ ko maanaam gis giñ koy gis saa su nekk fu nekk day tax ñu dem ba ba ba dootuñu sax bàyyi xel maanaam dootuñ ko garaawal voilà gis gi ñu koy gis chaque jour parce que boo xoolee tey exemple comme tey euh, yow nga nga nga yor sa benn sa benn société euh, nga di fa promouvoir benn mbir saa boo duggee société bi gis ñëpp sol ko wala saa boo duggee société bi gis tey ñi toog ñëpp moom lañ yor tey di lekk yow da ngay jàpp ne instant bi société bi yëpp xam nañ ko te fekk société bi dañ ko maanaam tey ñun Sénégal bëri ñoo xamante ne ni tey ñi ngi sol yére góor jigéen wala ñi ngi sor ñi ngi ngi takk verre yoo xam ne verre góor jigéen la te rendre ñu si compte ñoom ñu nekk Europe tey ñi ñoo yor loolu noonu bu ñu demee tey ba gis loolu noonu bëri si Sénégal dañuy jàpp ne xam ko Sénégal nag léegi dafa mel ni ñoom dëkk bii nii dëkk dëkk dëkk loolu noonu la te fekk ça c'est diamétralement opposé maanaam tey télévision yi bëri na tey ñoo xamante ni nii sax ñi ngi nekk si kanam écran yi di présenté ay émissions yu mag ñoom ñi ngi leen di promouvoir chaque jour te ñu bëri xamuñ ko ba si mike yi nga xamante ne xale yi dañ koy seetaan gis nga mike yi bés boo gisoon niñ koy dessiné da ngay xam ne ñii non no non ay borom xam-xam lañ man damay jenn sax damay woo samay seen waa kër jël mike yi di leen wan niñ koy dessiné départ bi mais buñ ko diseenee sax da ngay gis ni lii sexy la. da ni lii nii sexe la mbir mu ñaaw lay doon léegi nañ dañuy ñëw def si ñaari njubb mu nekk bopp ak ay tànk mais xale ak mag dafa bokkut parce que boo xoolee lépp loo gis nii xale sax bu ñu koy jàngal dañ koy jàngal bi muy xale ñoom dañuy am vision te dañuy am xel pour capter bu ñu ko xoolee automatiquement yow mag mi miki ngay gis nii mais ñoom dañuy gis leneen dañuy gis leneen léegi nag ñun ni ñu mën a jàngatee mooy ñoo xam ni lépp loo xam te mi ngi daw si télévision yi mi ngi dem si rajo yi mi ngi dem ci tableau euh, pub tableau yi nga xam ne moom la ñuy taf si mbedd mi pour di publicité loolu noonu yëpp ñu leen si promouvoir te ñun xamuñ ko ba ci yenn séries yi rawatina yenn séries yi parce que bëri na fii séries yoo xam te ne Aladji Mounir ñoo ko financé mais dañoo muus nag duñ ñëw rek wan wan nit ñi liñ bëgg non dañuy bàyyi série bi dawal mu jaar yoon wane li nga xamante ni moom lañ bañ Sénégal ba yow nga commencé concentré wu ci série boobu noonu ñu commencé di si dugal yeneen euh, te am na beneen xeex bu gën a garaaw pour nit ñi sa xel mooy gis nga gars yi bu ñuy bu ñu la bëggee bëggaloo benn mbir te bu ñu ko jaaralee ci série maanaam actrice bi wala acteur bi moom la ñuy moom la ñuy moom mooy liggéey loolu te da ngay gis film yu nit ñi gën a bëgg acteur bi wala actrice bi surtout acteur bi sax góor jigéen lay doon nga xam ne yow da nga koy yërëm ci film bi da nga koy bëgg yow foofu ñu ngi la koy miinal ñu ngi la koy miinal yow ngay miin acteur boobu noonu di ko miin di ko miin ba yow boo gisatee góor jigéen da nga koy bëgg bi pour mu mucc kon cest dire que nit ñi timit nañ bàyyi xel ci li nga xamante ni nii moom la wala seeni doom loolu la ñuy seetaan. très bien fi nga génn am na solo rawatina ci wàllu série yi man damay faral di seetaan série yu bëri mais par exemple da ngay gis ñu ciy dugal ay affaire yu sew par exemple léegi booy seetaan série da ngay gis ñuy lekkee càmmoñ wala ñuy naanee càmmoñ te loolu ñun xamuñ ko woon ci film tubaab bi lañ ko daan gisee ñu koy seetaan di ko minimiser mais lu garaaw la. benn jour dama doon jàngal sama yenn élèves xëy na sax ñu ngi may seetaan ma gis kenn ki yor ndox di naanee càmmoñ te daawuñ ko def te da lay na ci télé bi lañ ko gisee ndax yaakaar na ne luñ gis ci télé bi rek giraawul parce que depuis télévision dugg dugg Afrique duggu Sénégal luñ ci teg lu nekk dañu ko imposer. seetu lineex peuple bi ñu commencé ko de mais dañoo seet ñoom programme yi nga xam ne dana jàllale seen message bi ñu bëgg te mooy def ñu ay tubaab def ñu ay nasaraan euh, ñuy doxee seen gëm-gëm ak seen culture ñu indi ko ci télé bi. léegi nag télé boobu bi mu demee ba am fi ay fanweeri at ay ñeent fukki at ñu soog indi ay télé privé télé privé yooyu tamit ci yoon boobu rek la ñuy aw parce que fekk nañ population sénégalaise euh, tàmm seetaan yuy ni mel kooku tamit lu mot a bàyyi xel la kon série yi ñuy seetaan nañ ci bàyyi xel. te ma li ma jaaxal ci Sénégal tubaab yi ci boppam ñoom bu ñuy seetaan film wala yenn programme tele yi duñ bëgg seen njaboot toog mais Sénégal bu ñuy seetaan xale bu gën a ndaw ak maire beeg yëpp ñoom ñooy toogandoo lu ñuy seetaan ci bi ñoo koy seetaanandoo amul programme yoo xam ne dañuy dàq xale yi déedéet yëpp ñoo koy seetaanandoo loolu mooy li gën a garaaw après ça sama doom day ñëw wax ma wax boo xam ne sax damay tëj sama gémmiñ nga nekk foo ko déggee mu ne ci tele bi wala foo ko gisee mu ne ci télé bi. waaw loolu nag day wane na kon ñoon message yooyu ñu ñi nga xam ne ñu ngi koy jàllale ñu ngi koy réussir bu baax ci suñuy doom war koo réussir ci suñuy set aussi muy lu doy war bokk na ci beneen affaire bi ci wàllu góor jigéen keroog damay seetaan benn série ba yàgg waa ji wax moroom mi ne ko ne wax wax ko ne ko je keneen ko tontu ko daanaka kon war nañ laa wutal gel nga xam ne baat yooyu da ko ko mën a wax xam nga genre kii yu ndaw yooyu ñu ngi koy ñu ngi koy dugal ndànk-ndànk kon loolu lu a bàyyi xel la ñu bàyyiloo xel njaboot gi bu baax donte sax du lu yomb fi nga génn foofu kon am na solo euh, ba léegi rek ci question yooyu dafa mel ni ñoom léeg-léeg ci wàllu politique ak wàllu wàllu wàllu wàllu religion bi côté yëpp daal danañ fa jaar pour dugal jàllal seen message par exemple bu dee ci wàllu politique fan lañu war a mën a jaar ci politique pour pour pour jàllale message homosexualité ak yeneen yi nga xam ne bëgg nañ koo bëgg nañ koo dugal ci population bi ci wàllu yàqut. macha allah loolu am na solo parce que boo xoolee tey ñoom bàyyiwuñ dara bàyyiwuñ dara parce que euh, seen seen ni ñuy ni ñuy ni ñuy liggéeyee ah, soxlawuñ koo xamante ni exemple doo génn télé lu bëri. parce que jamono ji ñu toll nii léegi lépp loo gis rek si ñaar yi la euh, maanaam télé bi wala internet bi si loolu la ñuy si loolu la ñuy utiliser. boo xoolee tey politiciens yi euh, bëri na si ñoo xamante ne ni tey moo xam fii la moo xam fu mu ta doon maanaam boo nekkul ci yenn mouvement yi doo am doole rawatina euh, politiciens yi nga xam te ni ñoom ñoo nekk biir Europe wala ñoo nekk biir euh, biir États-Unis wala Asie saa à dire que foog nga nekk faramason wala foo nga nekk ci mouvement goo jigéen bu am doole bokk ci am doole pour yow ñu mën la dooleel nga mën a xëccoo gouvernement bu dee bu dee cadre Afrique nag exemple kenn ku nekk da ngay am projet bu ñu lay tegal. parce que tey tubaab yi ñëpp xam nañ ni rawatina France bi nga xam te ñoom ñoo ñu gis nañ góor jigéen ni ñu fa mel léegi tey bu ñu ñëwee tey gis ni tey euh, euh, parce que euh, li nit ñi xamul wala li nit ñi umpale mooy cest à ñoom dañuy tànn candidat ñoom ñoom seen bopp dañuy tànn candidat moo xam goor jigéen yi moo xam faramason yi dañuy tànn candidat niñ ñu koy tànnee mooy exemple dañuy ñëw tey gis ma man ma ñëw nekk si réew mi commencé am tuuti cër. cër goo xamante ni maanaam mën naa ni sax genn wàll nit ñi wala xaajaatu xaajaatu genn wàll nit ñi xamuñ ma mais dañuy ànd ak man di liggéey ak man alaaji munir nekkul ne benn weer wala ñaareer wala benn at non non dañuy ñëw ñu miinal la commencé laa miinal nit ñi nga jékki-jékki commencé am astuut boo amee astuut tey commencé jàppale nit ñi sa waa koñ commencé laa bëgg nga commencé jàppale quartier bi sa waa quartier commencé laa bëgg ñu commencé léegi di la wutal ay émission yoo xam ne da koy def télé wala ñi di la invité télé wala rajo ngay dem nga commencé siiw sa à dire que léegi nag moment yu boo fa nekkee da ñoom dañu am objectif boo xam ne dañ koy am parce que ñun africains yi ñu taaral mooy lépp lu ñu bëgg rek dañ koy yaakaar si deux ans wala trois ans lañ koy réglé par rapport ak ñoom ñoom lépp lu ñu bëgg dañ siy jël temps dañu dañ siy jël temps moo tax boo xoolee ñun euh, amuñ patience dañ koy waxee si lépp nag dafa feeñ si suñu dund quoi mais ñoom côté boobu lañ ñu rawee tey bu ñëwee tey gis ne exemple Euh, bëgg nañ am doole si politique bi dañuy ñëw xool benn hélas ànd ak moom un an deux ans trois ans ba hélas commencé am doole ñu jéem ko dugal ci gouvernement mu nekk fa lu ndaw bu ñu ñëwee nag dañ koy dañ koy proposer li nga xam te ni ñoom moom lañ bëgg parce que ñëpp xam nañ ni instant bi góor jigéen lenn mooy seen yitte mooy dañuy sibile ay dëkk dëkk yooyu noonu tey ñu tànn dañu bëgg tey ñoom ñu nekk fa maanaam euh, ñu ñu ñu dagganal fa li nga xam te ni moom lañ bëgg. léegi te dañuy xool ki nga xamante ni tey jege na jege na jege na nit ñi kooku la ñuy jàppale ci financement mu am ay oto dem di dikk di ñëw li la koy won mooy tey da gis tey benn président boo xam day toog boo xoolee li mu yoroon dix ans ci ginnaaw wala cinq ans ci ginnaaw du mat par rapport ak li mu yor léegi ci alal alal jooju fan la ko jëlee dañ koy financé te euh, li si gën a garaaw nag mooy gis nga ñoom dañ lay protéger protection boobu moo si gën a garaaw tey si nekkee tey ku am doole ñoom dañ lay protéger ci la lenn te Sénégal gi lenn rek moom moo leen moom moo ñu may côté si politique pour gàttal euh, pour pour tontu sa question yoon bi ñu ciy jaaree pouvoir mooy war la ngay jékki-jékki gis yenn saa opposant yu am doole si lu gaaw a gaaw a gaaw parce que am na ñu leen jàppale moo xam ne franc-maçon yi lay doon moo xam góor jigéen yi lay doon mais comme si domaine góor jigéen lañ nekk da ngay gis góor jigéen yi dañu am mouvement bu rëy bëri alal dañuy ñëw tey jàppale ay opposant bu ñu jàppalee opposant yi opposant am doole lépp lu état bi teg opposant yi dañ koy mën a contrer léegi nag ci noonu noonu nag la ñuy jàppale opposant bi di ko dooleel ñii naan la ñii naan du moom ñii naan ñu ko bañ la ba keroog muy nekk président bu nekkee président li ñu njëkk def mooy mooy premier point bi ñu njëkk a teg mooy naka daganal. très bien mais boo waxee ci wàllu euh, wàllu état ak ñi nga xam ne ay dirigeants lañ ci wàllu politique wala ci sax opposants yi kon loolu est-ce que est-ce que valable na ci Sénégal parce que Sénégal am nañ opposants yu am doole yoo xam ne seen émergence gaaw na trop mm-hmm. est-ce que mën nañ ñaaw njortu ci ne ñoom mm, loolu moo leen loolu moo loolu moo tax ñu siiw quoi. waaw xam nga tey. muy gis nga lii di faramason lii di góor jigéen cest à boo si duggee ñoom dañ lay may dañ lay may dañ lay may euh, dañ da nga doot maanaam boo si duggee dañ lay nangul yow nga nga làq ko ba benn niveau bi rawatina faramason boo si duggee nii yow exemple benn niveau bi boo si àggee bu la neexee da ngay taxaw ne man nekkuma ko gis nañ fi suñ président boo xam ne na woon moom la woon mais après mu ne ko parce que na benn niveau bi ay ay numéro la yoo xam ne da nga koy yéeg muy faramason boo si àggee bu la nga taxaw ne nekkuma ko fekk yow am nga loo def

pour nga dugg si sérieux problème la. parce que man moom mu dugg dugguma fa. parce que yàlla dogal na mosuma fa dem man visite sax mosuma ko fa dem mais cest à dama def ay gëstu am ñu ma doon waxtaanal ñu xamal ma noonu ni pour nga dugg foofu am accès fa su ñoom dem nañ fa pour nga am fa accès problème la problème boobu noonu nag moom mooy moom mooy moom moo dégg ka si ni euh, seeni seeni seen bagages yu bëri fa la nekk seen i bagages yu bëri parce que boo xoolee tey exemple biñ koy biñ koy biñ koy inauguré bëri na ñoo xamante ni nii tey ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñi ngi ci mouvement franc-maçon bi te nëbbuñ ko mu yenn président yi ñi nga fa woon te bi loolu jàllee parce que am na c'est-à-dire que bugguma dugg carrément ci ci ci ci côté boobu noonu parce que li muy laaj dafa bëri quoi li muy laaj dafa bëri parce que euh, tey boo xoolee euh, franc-maçon yi dañu am doole nag. dañu am doole ci mën a indi rek pour ñi seetaan. dañu am franc dañu am doole. mais doole boobu ñu am noonu ñi ngi naan ñoom ak góor jigéen yi ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoom ñoo dooleel góor jigéen yi parce que boo xoolee ñoom ñoo ëpp doole góor jigéen yi foofu soy ñoom ñoo ëpp doole góor jigéen yi mais ñi ngi naan góor jigéen yi si ñoom lañ suudeewu parce que ñoom euh, góor jigéen yi njabootu faramason yi lañ kon c'est-à-dire que tey ñoom foog ñu foog ñu xaw a définir parce que seen bëgg-bëgg seen yaa seen seen bëgg-bëgg soreewut parce que ñoom lu ñu yàqee lañ bëgg léegi boo xoolee troisième pour nga dugg fa yow foog foog ñu reconnaître la foog ñu xam la parce que xañ na ñàkkul ay secret yu fa nekk yoo xamante ni tey ku dul ñoom du ko xam c'est ça kon looloo tax exemple monument de la renaissance euh, gisuma si njëriñu ñun njëriñu Sénégal lu bëri quoi gisuma ko si si si ñun niñ ko niñ ko xamee par rapport ak ñoom niñ ko jàngatee léegi su ma ñëwaatee si exemple ci euh, sa question muy si cadre gojigi jigéen yi euh, gis nga tey dafa am loo xam dafa jar a xel trop. te ñun te ñun ñun mën naa ne ñun Sénégal bàyyiwuñ si xel rawatina ñun ndaw ñi da ngay dajeeg nit mu ne la gëmul lu dul maam Cheikh Rafal wala maam Borom Touba nit ki gëmul lu dul maam El Hadj si mais c'est-à-dire chaque fois day def loo xam xamante ni maanaam ñooñu ñooñu tey borom ñaari tur bu ñu ko gisee euh, dañ koy dañ koy bëgg dañ koy bëgg parce que bu njëkk da nga daal gis. comme lan ci wàllu col wala. ci wàllu colin en même temps tamit ci wàllu manière parce que léegi boo xoolee Sénégal dañu commencé góor ñi léegi dañu commencé bëgg manière dañu commencé bëgg manière Euh, ma bëgg gaa yi bàyyi ñun ñu bàyyi xel si lu bëree bëri quoi xam ni tey euh, réew mi ñu nekk nii day gën a métti si kanam day gën a métti trop te yaakaar naa ni yàqu-yàqu yi nii gisaguma yoon buñ jaar pour saafara ko instant bi nit ñi dañuy nekk di wax nii di jóg ko dal rek mais gisaguma yoon boo xam te ni dañ kaa jaar pour saafara ko kon yaakaar naa ni tey euh, liggéey bu rëy rëy la laaj pour loolu noonu bañ dañ parce que ñun ñi ñuy waxal nii Alaaji Munir dégguñ ñu sax. gis nga ñi ñuy wax ni ñenn rek ñoo si man dara muy état Sénégal dégguñu sax yëgaluñ ko sax seen yaram léegi nag ñun il fallait que ñoom ñu xeex ak ñoom pour ñoom loolu li ñuy bëgg jël nii ñu teg ko ci suuf. tabaarakallah xam naa nag euh, du nekk lu yomb xeex bu metti lay doon ndax euh, maanaam seen doole jiñ àndal moo tax ndax depuis àdduna ba mu sosoo ba léegi ñaari kuréel rek fi nekk bu la ak bu seytaan mooy nen na ñeneen ñi ñooy bu seytaan mooy parti seytaane ak ñi nga xam ne ñoo farag yàlla yàlla nañu ci yàlla boole mais pour yow lan moo war a nekk solution bi nga xam ne moom lañu war a def ngir fegal yàqute yi suñu njaboot ngir góor jigéen mën fee jeex yan solution daal lañ mën a def. Ah, loolu nag euh, lu am solo la parce que àdduna lépp loo gis rek euh, war na mën a am solution quoi xam nga gars yi dañuy wax éducation de base amatul mais éducation de base mi ngi am ba léegi. c'est-à-dire que ñetti yar mo am si aduna moy lu ñep lu lu jara baye xel ñetti yar ño am moy yar bi nga xamanteni mula la sa wa kër di yar su ma ne waa kër timit moy école ba parce que école bi léegi gars dañ ko bolé won ci yar gi moy bi la sa wa kër di yar bi la mbéd mi di yar ak bi nga xamanteni yow ya ko yar sa bop tay da ngay judd nek ak sa papa ak sa yaay ñu di la wan ni ci baxul def lu bon baxul bob moy exemple éducation bi nga xamanteni mom la lay say parents di yar nga génn mbedd mi wala sàcc bi niñ ko def jam nañ ko paaka wala sàcc bi dóor nañ ko dóor nañ ko ay xeer faatu na nga xam ni kon foofu noonu sa parents yi li ñu la doon conseil ak li la doon tere mi ngi nii euh, mu des beneen bi nga xam te yow yaay après màgg nga xam ni man kat lii waruma lii waruma lii waruma ñett yooyu ñoo fi am ñu bëri nag boobu moo leen di manqué mooy troisième bi euh, tey buñ bëggee tey loolu noonu jóge fi wala mbaax gi nga xamante ni moom la suñuy maam xamoon ñëwaat du dañuy toog wax. dama ci dama ci dama ciy mere oustaz yu bëri ci ni ñuy waxtaanee pour pour conseiller pour conseil pour conscientiser peuple bi yenn saa yi dañ koy xaw a rate moo tax peuple bi oustaz yi léegi ñu si bëri dañ leen a jàppee ay comédien ay comédien kon loolu noonu nañ si bàyyi xel léegi nag pour nga am solution bu dëgër bu baax doo ko bëgg ci ren gii nii wala déwén parce que dafa am benn exemple bu may joxee benn entreprise bu may liggéeyee gars dañ ne woon dañuy grève man leen grève dafa am yoon topp leen yoon bi bu ñu toppee yoon bi li ñu bëgg dinañ ko am moo xam 2 mois moo xam 3 moo xam 4 mois mm-hmm. rek nga gis gars yi dagg ma ci saa si ne ma non non weer bii lañ bëgg affaire yi rek la mm-hmm. man noppi ne leen baax na c'est-à-dire que la ñun africains yi rawatina ñun Sénégal dañu yàkkamte dañu bëgg lépp lu ñuy def rek ñu ko tey par rapport ak ñoom gis nga tey ñoom bi ñu bëggee affaire yi mag gis nga tey cas de tout petit ni ñu ko jàngatee ak ñu bëri ni ñu ko jàngatee mooy tey euh, yàq na loo xamante ne nii tey exemple bari na si diine ji parce que boo xoolee quasi tout petit bi mu amee ak léegi normalement bu deful 10 ans war na ko jege euh, tey boo xoolee bi mu amee ak léegi li ñu bëri li ñu amoon tey jël seen doom tey ñi nga xam ne dañu préféré seen doom jàng alxuraan sax ñu jël ko yóbbu ko ci daara ji 7 ans yóbbu ko ci arabe yóbbu ko école amatuñ loolu léegi dañu préféré jël seen doom ne yóbbu quasi tout petit xale bi 2 ans la fay nekk 3 ans 4 ans ba 7 ans jël ko yóbbu ko école kooku du am dara dara dara dara dara si diineem kooku manqué éducation boo xam day day day jëm si wàllum diineem Euh, beneen bi si topp mooy beneen bi si topp mooy tey boo xoolee euh, français ñi koy jàng ñëpp ànd nañ si ne yow métier sax doo ko am fii ak amoo bac boo demee ba am bac si ngay door a amee métier. Mm-hmm. mais ba am am bac sax kay taxul nga am métier. il faut ah. nga dem ba université dem ba am licence. Mm-hmm. am ñoo xam ne dem ba am ba am master 2 sax. Mm-hmm. duñu am duñu am liggéey. voilà malheureusement. kon c'est ça kon léegi mën nañ ni. yow bi ngay commencé am deux ans yóbbu la case tout petit nga génn dem école ba li ngay amee bac si ngay door a commencé yow ne man métier bii laa bëgg a def dem université pour pour concentrer aussi deux ans ou quatre ans léegi tey nga ñëw man ma jël sama doom yóbbu ko tey euh, arabe ba muy jàngi euh, dama am lu ma bëgg leeral foofu tuuti quoi pour wanaale exemple nan lañ mën a def ba xeex mbir moomu noonu boo xoolee tey kii day am doomam sept ans mu yóbbu ko mu dem jàngi mu dem jàngi français kii am doomam sept ans mu dem jàngi alxuraan. ñu dem ba ñoom ñaar kee am ki kii wàccee ki jàng alxuraan mu wàccee yaasin surtout yaasin kee ne am entrée en ñu dem kee wàccee xaaju suuf bi kee wàccee xaaju suuf bi ki jàng alxuraan kee am bac am am BFEM troisième kee wàccee kaamil bi kii ne am bac yaa may dégg bu baax ki am bac dem université ki am ku wàccee kaamil bi dem jàngi xam-xam jàngi xam-xam ba am xam-xam ubbi daaraam kee ne ubbi euh, entreprise am wala mu nekk société jël ko ñuy liggéey alaaji Munir foofu noonu dafa am benn point bu am solo boo xam ne dama si bëgg nit ñi bàyyi sa xel bu baax a baax moo tax ma wax ma boole ko si parce que gis nga tey ki nga xamante ni te dafa jàng tey ba am xam-xam jaar foofu noonu yëpp ñëw ubbi daaraam état jàppale woo ko lépp moom moo ko defal boppam ubbi daara ñenn xale yi di dem di yalwaani di ñëwaat mu war si faj xale yi moom mu war si dundee léegi na séance al weer dee xale yi versé ko mu am 100000 ki doon jàng français am bac dem université pare dem liggéey weer de ñu fay ko mu am trois cent mille moom muy yéenewul ki doon ki doon ki jàng alxuraan pendant moom li muy jàng français yëpp cent mille yi xale yi verse mu ne non day liggéey day liggéey ci xale yi léegi gis nga xale yooyu noonu ñoom ñooy màgg après ëllëg muy si éducation xale yooyu noonu ñoom ñooy màgg ñu xeeb benn métier gis nga te El Hadj Mounir boo demee si marché yi ñi jàng alxuraan nga fay fekk ñoom ñooy jaay géej yi ñooy jaay yëpp. la mesure des parties tey boo xoolee tey ñi nga gis tey ñiy business wàllum téléphone ak yenn affaire yi. secteur informel bi. merci beaucoup mooy ñi nga xamante ni tey dañuy jàng français. te te demuñ quoi ñu kale maanaam liggéey sax du doon benn léegi nag pour ñu am éducation bu baax pour suñuy doom exemple bañ a dugg ci mbir yooyu noonu dañ koy déparé ca ba ñuy xale ñu togg leen nit ñi bu ñuy dem gàmm wala bu ñuy dem màggal ñuy préférer di ànd ak seen i doom di leen bëgg loolu seen doom di bëgg loolu di si màgg ngay xool sa doom. parce que ñu bëri léegi erreur bi ñuy rate mooy dañuy topp seen doom li mu bëgg papa dama bëgg yére bii papa dama bëgg lii ñu def ko boo xoolee bu njëkk tey sa doom bu bu bu naawel ma saa la jot da nga ko daa jëndal ay cadeau pistolet mu koy fowee ngay seetaan ay film yoo xamante ni day bëri ay rey xale yi dañuy génne commencé di fowee ay rey loolu li ñu siy jàngee mooy xale si li muy li muy fowee rek loolu loolu lay bëgg léegi nag suñ solution ñun bi nga xamante ni moom la ñuy teg muy du mu tudd état parce ma waxee état jàppale ñu si rek day mujj soo xewaat parce que day jëlaat dossier yi teg ko mais li nga xamante ni moom mooy suñu kilifa diine ñi nga xam ne ñun ñoom lañ yaakaar ñoom ñoo ñuy teg si yoon bi nga xamante ni ñun buñ dëngee ñun buñ demee ba jaaxle si benn mbir ñoom ñooñu a gën suñ solution nag mooy euh, ñoom mën nañoo wax ak état bi ñoom mën nañoo wax ak télévision yi ñu xam bu baax a baax a baax li nga xam ti moom lañ ñu woon suñuy doom parce que El Hadj Mourid da ngay gis koo xam day yar doomam weer yar doomam ay at benn fan la ko télé di yàq benn fan la télé di loolu ngay toog sa kër toppatoo say doom ba nekk paa da gis paa boo xam ne day ni mu ni muy dundee yëpp doomam yëpp dañuy nekk si yoon mais télé bi à chaque fois loo xëy liggéey ko télé bi xëy yàq ko mu nekk loo xamante ne exemple li dindi ko yombut mais si benn anam rek lañ ko mën a dindee mooy jëlaat sunu temps defaraat li nga xamante ni moom mooy société bi société bi nan lañ ko mën a defaraatee nekkul ay wax. nekkul ay wax nit ñi dañ naan dafa métti éducation de base fu ma déggee débat ñu ne éducation de base du question éducation de base question de question de euh, de de question de kii la de pare maanaam pare su ma ne pare mooy c'est-à-dire ñun ñëpp dañ si àndandoo pare muy état bi moo xam suñ kilifa diini yi nga xamante ni ñoom lañ ñoom ñoo ñu fi nekkal léegi nag suñu yoon bi nga xam xamante ni moom lañ mën a jaar ñun ñëpp ñu bàyyi sa xel mooy yoon bi nga xamante nii tey dañuy jëlaat suñuy doom. ñu jàngalaale li nga xam te ni moom mooy diine parce que dara amul lu diine moo xam catholique bi moo xam musulman bi parce que damay dégg ñaan dialogue diine et musulman bi léegi loolu dialogue diine et catholique bi sax wala ñu ne musulman bi et chrétien bi loolu noonu nag pour mu taxaw foog ñun ñëpp ñu àngoo ñu àndandoo xeex bi parce que lii nii fi mu jëm dafa bëri fi mu jëm da li mu nar a yàq dafa bëri parce que instant bi man li ma ci li ma ci gis dafa pour nga wax ko sax problème lay doon parce que boo ko waxee tey nit ñi dañ nit ñi daf leen di jaaxal parce que tey am na ay koñ yoo xam te fa duggee dañu am ay néeg ki am ay kër am yëpp comprendre nga yoo xam waaw dañu am lépp yow da nga leen di gis nii sax dootoo leen mënal dara parce que léegi dootuñ ragalatuñ la parce que léegi am nañ fi droit. Ah, loolu la parce que ñi ngi ñi ngi laam-laamee ne code de la presse bu bees bi. bokk na ci liñ ci daxeñ mooy buñ ko buñ ko voté ba ba mu commencé dox kenn amatul droit taxaw ci ci média di di di yekk di wax ci góor jigéen ñi quoi di leen tuutal wala wala nangam nangam. waaw loolu loolu tamit euh, lu lu jara kii la en plus constitution bi nga xam ne moom lañ mujjee voté mm-hmm. dégg naa ay spécialiste ci wàll wi ñu ne dugal nañ ko ci biir mm-hmm. donte sax leerul ñu bari ci seen bopp mm-hmm. waaw muy muy droit yooyu ngay wax nga xam ne ñu ngi leen ko commencé may ba nga xam ne nit ñi dootuñ leen ñeme sax di leen di leen di leen di leen bundu xataal waaw loolu lañ bëgg parce que boo xoolee tey euh, maanaam du gouvernement bii nii niñ ko dugalee si si si constitution bi maanaam du gouvernement bii nii moo koy taxawal mais le gouvernement bu ñëwee ko taxawal wala gouvernement bu ñëwee day fekk loolu mu nekkoon ci gouvernement bi du si mën lu bëri. mu continuer voilà mais gouvernement fait que du si wax mais am na lu si def lu bëri bëri bëri bëri. loolu exemple ñoom ñu commencé am doole parce que tay boo bu bu njëkk da nga daal da nga leen daal gis dóor leen instant boo leen laalee tey bu ñu la plante da ngay am problème te pourtant man gis naa président Yaya Dia mu taxaw def si benn vidéo bu am solo mu taxaw ne moom bés ku taxaw ci réewam wax ko yooyu noonu dañ lay nëbbu ko sax laaxa-laaxalu ko te loolu noonu la ñuy xaar si nit koo xamante ni am nga ngëm-ngëm quoi mais nekkul que da ngay négocier wala yi parce que boo xoolee tey Sénégal exemple euh, euh, tey boo xoolee tey Sénégal kilifa diine yi tey lu xew lu ne da nga fay dem wan leen yow da leen a gëm wan leen wan leen yow ni nga mel ci diine léegi yow boo walbatikoo ba pare ñu mel noonu nga di leen xawal dooleel yaakaar naa ni li ngay yàq sa réew moo ëpp li ngay defar parce que liñ ciy gagné ñoom bëriwut président yeeg état yi li gagné gagné wul da ngay ñëw ñu gouvernement may la bu bari nga voter après yàq sa yàq sa peuple parce que ñoom xam ni bu affaire yi dañuy daw bàyyi dañuy daw génn fi kon kon li ëpp importance mooy ñun suñu bopp ñun ñu bañ loolu noonu ñoom it ñu bañal ko seen bopp. avons, hmm. gis nañu ne ñoo am nañ ay ñu xam ñu ci question boobu am nañ ñu ñu ci population bu nekk mooy dañuy seet jeunes yi jeunes yi nga dañoo am ouverture comme nous mel ñoo xam ne dañoo intelligent ñu leen di jéem a xëcc euh, ñu ngi ci place liggéeyukaay ñu ngi ci entreprise publique yi privé yi foo dem rek am nañ fa représentant ñoom ñooñu. léegi yow est-ce que mosoo ci dundi expérience koo xam ne mos nga ci dajeeg moom mu lay jéem a promouvoir di la jéem a xëcc ci seen biir. bari ki démb rek maa si waxtaan benn waay yàlla xam na ko mas ma dal parce que man dama ko daal dégg rek dama ko daal dégg rek maa ngi siy waxtaan ak benn waay keroog bari ki démb ma ne ko. ndeke suñu boroom lu mu tere rek am na lu tax mu tere ko alaaji ma ne dama leen daal dégg ne bëggoon leen gis nag bëggoon leen a xam quoi nan lañ mel di tëltëli rek di ñaan yàlla loolu naan bés bu ma leen gisee dama leen di gaañ tëltëli mais ndeke ñoom it dañoo yeewu comme ñun ni ñu jàppee dañoo yeewu ñoom noonu lañ yeewoo euh, duñ tëb tëb rek dugg ci yow dañuy xool yoon ñu jaar ba dugg ci yow man mas naa si am expérience boo xamante ni duma ko nettali kenn yàlla xam na ko su ma koy nettali sax. Euh, day damay damay dugg ci côté ñàkk fulla li tax mooy dama wane foofu noonu dama doon jaay yeewu ba tooñ sama ruu maanaam waa ji dañuy ñëw ñu xamante comme ni nga ko waxee ñi ngi fépp nag te boo leen gisee nii mën nga leen a bañ a xam mais boo demee ba dugganteek ñoom ñu la wanee seeni manière nekk dañ koy denc waa ji ñoo bokk benn sànce pour ma expliquer ko pour nit ñi comprendre ñoo bokk benn sànce biñ bokkee sànce nag euh, comme man dama am yite damay romb di nuyoo may romb di nuyoo nuyuwaale ko moom it xam naa mu xool ma ak sama comportement wala dara loolu loolu xaw ko neex mu di ma nuyu ñuy nuyante ba benn jour ñoo kon personnel ba benn jour bi ma duggee ci personnel bi moom mu woo ma a nuyu ma ziar ma ma fay ko ma toog man kese parce que dama am man kese di toog quoi ma man kese bi ma toogee moom mu ñëw toog sama wet bi ma ñëwee toog sama wet nag mu commencé di waxtaan comme man yàlla dogal na ni yàgg naa génn quoi xam naa lu bëri mu commencé waxtaan ak man ndeysaan mu wax rek ma commencé capter li muy wax. may décoté ay code parce que ñoom exemple dañuy yor ay code ñëw duñ ñëw bëgg waxtaan ak yow euh, directement ci liñ bëgg mais dafa am ay yoon yoo xamante ni yoon yooyu la ñuy jaar léegi nag gis nga yoon yooyu ñuy jaar noonu tey bu dee yow ngaaka nga doo doo décoté dañuy xam ne kii nii bokk si léegi nag man comme commencé na dugg ma commencé comprendre li muy wax ma commencé léegi bu waxee rek ma xam li mu bëgg wax ma tontu ko man tamit si kàllaama boo xamante ne nii xam naa ni dina xam ni kii nii xam na dara ci mbir yi c'est-à-dire nga xam nga ñoom exemple bu ñu bëggee bu ñu bëggee duggante ak yow duñ ñëw rek exemple comme ne la euh, sawaay yow lan nga wala nu demee non dañuy commencé ñëw jaara yow naka mu gaañ lépp jàmm commencé waxtaan ay waxtaan yoo xam ne exemple euh, merci beaucoup suñu waxtaan maamu xam nga fan la déparé ci cadre ana booy yi jox ma booy yi affaire yooyu noonu ci cadre boobu la déparé commencé dugg ci wàllum àdduna bi ñuy wax ba benn instant moom mu dugal ci mbirum góor quoi comprendre laaj ma lan moo tax ñaar yooyu noonu lan moo dàq ak affaire yooyu noonu quoi ma commencé décoté wax ji. ñaar yan góor ak jigéen. waaw. Mhm. commencé dugg ci wax jooju ma ok ma xaw a jëli tuuti quoi bi mu jëlee nag ma ma man tamit ma wax ak moom ci beneen kàllaama boo xamante ni exemple ci ñoom seen dégg-dégg la parce que ñoom damay ñoom ñu si ëpp dañuy dañuy dañuy kuusu ko jigéen ñi si ëpp tey boo ko nekkee tey ba yàgg si lu si ëpp da ngay kuusu. parce que foo toog da ngay parce que yàlla dafa defal dafa defal nit si ginnaawam loo xamante dafa am benn genre benn boo xamante ni exemple. Mhm. boo waree dem toile wala dara tey day fermé boo bàyyi day ñaar ñii nii ak puune yi quoi si wax ji cest bi bi bi ñun ñun bi ñuy xam ne tubaab bi duñ ko am exemple léegi nag ñoom bu ñu dindee loolu chaque instant ñoom dañuy kuusu comme dañuy dañuy kuusu parce que dañuy. comme dañ mën a téye seen kii. voilà duñ ko mën a téye léegi dañuy couche léegi bi mu waxee man ma jox ko xaw a jox ko tuuti si cax boobu moom nag mu exagéré dem na sax banaan ma kaañ dem sama appartement quoi. subhanallah hmm? ma commencé tiit nag man fi ma toog ma commencé yëg ni man sama ruu mi ngi mi ngi mi ngi métti li ci man ma tiit nag rey wax ji bàyyi wax ji mu sedd quoi ma gaaw wàcc oto bi te àggaguma bi ma dem ma waxtaan seeg sama papa. sama papa def ma jox ma ay dog ne ma defal ñaan quoi mais foofu mbokk mi lu ma bëgg nit ñi jàng si. mooy nit ñi bàyyi sa xel ñu xam ni suñu borom daf ne woon fu mu jaar bu fa jaar ndeke loolu dëgg la gis nga bés boo waxee ak ñoom ba yow ba nga rek boo ko reconnaître sax garaawul mais bés boo xamee ni kii ma doon wax ak lii la yàlla xam ne ni yow boo ko yëgul sa biir xol la xamal ne sa njullit des na waaw voilà bu desul ci yow rek xamal ne sa njullit des na yow demal nga demal nga jàpp ba sell demal tuubaat dugaat si lislaam mais bés boo yëgee ni man ñi ma doon waxal nii am na lu jóge ci man rek loolu ma sama papa wax sama papa ne ma santal yàlla ba yow ba nga yëgee ni tooñ nga suñu borom parce que ñi nga doon waxal nii ak ñi nga doon ki nga doon waxtaanal nii rek yëg naa sama ruu gi loo ni nii sama cat ba sama digg bopp laa la naa ni man nekkatuma mu ne ma kon santal yàlla comme yaa ngi yëg loolu mais boo ko yëgul woon la xamal ni rocce nañ sa ngëm yàlla. après yow yaa continué woon nga di ko gis comme yéen a bokkoon bérébu liggéeyukaay wala. non après dama rey dama rey loolu yëpp parce que dama préféré def le tout ba côté bi nga xamante ni man fa laa doon liggéeyee sax parce que ñun comme suñu liggéey yenn saay boobu ñu ngi ci terre bi ci terre bi lañ nekkoon comme booboo ñu ci terre bi doo nekk sur place da ngay déplacé mais yenn saa yi ma séen ko <laughs> yenn saa yi ma séen ko ndeysaan bu ma ko séenee ma ne ma lii ndeke kii li muy def nii nga ko après ñoom ñi ngi si bisu te nit ñi ko ah nit ñi xamuñ ko après ami demandé na ma ami ami ami ami Facebook def na le tout parce que moom man ni ma doon décoté wax ji ak moom moom mënul gëm ni kii nii du lii munu ko gëm xam naa ne ba nii nii nii sax munu ko gëm mais benn jour la def la Touba am sama numéro xaw ma kat moo ko jox sama numéro mu woo ma téléphone mais boobu noonu dootu ko dolli ba ma woowee téléphone xam naa ne bu ma gisee dina ma xam mais ba ma woowee téléphone dootu ko dolli waaw léegi fulla googu noonu nag la nit war a am ak personnalité yemale nit ñu jéem a defaat la Touba kenn ku nekk ki nga mën a conscientiser ki nga mën a wax ak ci loolu nga waxtaan ak moom ci loolu parce que léegi dañoo muus ñu la ñuy def xarit. dañ lay def xarit ba doo leen mën a dóor dañ lay def xarit ba doo leen mën a wax yenn dangay ngay mujj def leen rek génn si ñoom. te boo nekkee seen xarit da ngay mujj bokk ci seen i défense. non xam nga kee sax woon pour pour xëcc ma mais am na si ñoo xam ne loolu la ñuy yootu man gis naa si ñoo xamante ne nii gis naa si koo xamante ne nii tey dafa tegal waa ji visa tegal ko daf ko tegal passeport ne ko neel waaw mu jox la visa maanaam d'accordal man nekk sama nekk sama copain rek man ma jox la visa. ma jox la visa te kooku noonu tey ku am doole la si réew mi ku am doole la ci réew mi alaaji Munir xees pecc xees pecc nekku góor yàlla dëgg xees pecc am xaalis. bu njëkk dañ daan ku daan def yenn manière yi xam nga xaw a jigéene xaw a kii lañ daan wooyee góor tooñee góor jigéen quoi ci société mais dangay gis ñi nga xam ne ay góor jigéen lañ léegi mooy ñi gën a costaud gën a dëgër nekk ay góor yàlla njool ci kaw ñoom ñoo koy nekk. loolu loolu doy waar la. xam nga xam nga xam nga bu njëkk. exemple maanaam ku amaal yaru jigéen dañ la ko daal tooñee maanaam ku sa yaay yar dañ la daal tooñee loolu comprendre même boo ko nekkul sax mais sa manière rek dañ la ko daal tooñee moo tax dañ bëggoon dañu amoon lu ñu bëggoon ci góor léegi nag. bi ñu demee ba nga xamante ni léegi promouvoir nañ loolu ba loolu am doole ñoo xam ne léegi ñoom bu ñu amee ay manière dañ leen koy si mais manière yi ñi ngi koy yor ñi ngi ko yor mais. dafa am fu ñu koy fësal merci beaucoup dafa am seeni i saal ak seeni i béréb seen i yooyu bu ñu fa dajee la ñuy manière dangay da ngay jékki gis benn ñu publier benn photo nga ne waa kii xanaa bi muy génn seen kër du lii la solo no day dem ba ca xew ba comme yenn jigéen ñi ni ñuy demee ci takk war a fanaan foofu noonu yóbbu seen i yére soloof ñoom it noonu lay demee ñoom seeni xew dañ koy organiser ba nga xamanteni ni ñom rek fay nek dañuy def seeni manière ba yow bo leen gisee da nga non non xanaa kay ki ni du waji ji ma bok ak wala waji ma bok ak atelier mais seeni manière ñi ngi ko yor seeni yambar log ni ñi doxé seeni cakas-cakas yoy yeb ñi ngi ak mom mais fiñ koy wone moy place bi nga xamanteni ni ñom rek ñom ñofa fa daje ok yal nañu musal ci ñom musal ci suñu jabot euh, di contane bu baax ci waxtan bi alhaj ñu bayil rek nga tagato waaw macha allah jërëjëf ñu ñu ngi kontaan bu baax a baax si Alaaji Munir di ko ñaanal tey site bi nga xamante ni tey moom lañ nekkee nii di partager di si waxtaan ak nii suñuy mbokk yàlla def site bi mu gën a màgg gën a am doole parce que tamit euh, jàmbaar la quoi wax dëgg yàlla euh, jàmbaar la si diine ji jàmbaar la tamit ci tariixa bi waaye jàmbaar la tamit si réew mi parce que ñett yooyu dafa nekk loo xam ne lu am solo la ci dund doomu aadama muy nga góorgóorlu ba yow ñett yi nii nga matale ko muy sa diggante ak sa borom sa diggante ak doomu aadama yi mais tamit réew mi nga nekk nii tamit dafa jar tamit bàyyi xel keroog dama dégg benn waay si benn chaîne muy wax lu am solo ci éducation mu ne éducation ñaar rek am na ci solo ñaar yooyu nag bu ko nit ñi fàtte muy benn bi mooy xam li nga moom yow ak xam li ñeneen ñi moom mu ne boo xamee li nga moom yow Euh, euh, dina nekk dina nekk loo xam ne exemple doo yàqal kenn mais boo xamee li ñeneen yi moom tamit di nga xam tamit di ngay doxalee ak ñeneen ñi kon éducation ñaar yooyu kese la di waxaat tamit samay mbokk moo xam man moo xam sama famille moo xam ku munta doon nañ gën a góorgóorlu suñu diggante ak suñu borom parce que yàqaluñu dara te bëri na loo xam te moom moo ñu ko mën a defaral man li ma yor si ay ay ay ay xarit yoo xamante ni nekkuñ ay musulman mënuma leen a lim yàlla xam ne damay jalage ak ñoom waxtaan ak ñoom si seen côté ak sama côté ñëpp ba tey ñi ngi neexoo neexoo goo xamante nii tey foo ko takk weesu na ko kon li may conseillé ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk réew ñoo nekk euh, waa réew mi moo xam suñ kilifa diine yi moo xam euh, euh, au moo xam opposant bi nañ def le tout ba suñ suba exemple mu nekk loo xamante ni tey buñ ko tegaatee duñ duñ duñ am kersa voilà kon maa ngi tàggatoo di di ñaanal ñëpp jàmm di ko saaku si ñëpp di wax tamit lii nii ñu bëgg a xeex góorgóorlu ba mu dakk lépp luñ si mën a def nañ ko def parce que yaakaar naa ni moom mooy defar suñu réew Euh, am na solo jërëjëf kontaan nañ ci yow bu baax El Hadji Niang euh, ci oyof gi ci maanaam euh, ubbeeku gi yaakaar na yàgg nañ di def waxtaan yu mel nii depuis Leral Plus TV suñu groupe yooyu noonu macha allah nga ci daan def ay intervention yu am solo fa lañ la ràññeewee di ko rafetlu bu baax di la ñaanal tamit. yoon wi nga jël yàlla gën la ci dëgëral yàlla barkeel la doole laa barkeel doole barkeel sa njaboot ak sa liggéey di kontaan ci yow bu baax ci yitte bi nga def it pour ñëw si ñëw wuy si suñu woote fii ci Safina TV ñaan yi ngi ci ñaan tamit yàlla na ko yàlla def di ziar bu baax suñu sëriñ suñu kilifa di njiitu kër gi di Thierno Yoro Bane di nuyu tamit suñu directrice euh, soxna Ñuma Ba suñu technicien la grand technicien muy sàmba Si ak euh, Bira ñu ngi leen di ziar bu baax kon di leen jox dig daje rek incha allah ci beneen jotaay ci beneen tam ci religion et société wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.